الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وصلى وسلم وبارك على عبده الأمين والمبعوث رسولا في الأميين وهو أشرف المرسلين وما أرسل إلا رحمة للعالمين وقد ختم النبيين وساد الأولين والآخرين محمد وآله الأتقين الأكرمين العالمين العاملين والزاهدين الناصحين وعن الناس العافين والمذهب عنهم الرجس المطهرين كما صلى وسلم وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أبي الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن أصحابه المهديين الهادين والأبطال المجاهدين والغلاظ الأشداء على الكفار والمنافقين السابقين الأولين من المهاجرين وأنصار الدين والذين اتبعوهم بإحسان من الرضوانيين من بايعوا تحت الشجرة ومن غيرهم من الذين جاءوا من بعدهم وانتهجوا نهجهم محبين في الله لهم واستغفروا لهم كما لأنفسهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين gannaaw buñ sante yàlla mi wax ci téeram bi ne julli day tere ñaawteef ak lu lépp loo xam ne sariya rafetluwul ko rekk te dégg yit ci waxam jooju ne kenn du mën a bàyyi ñaawteef lu bon lum ne mukk féeg mi ngi sàggane julli teg ci julli ci yonent bi ki nga xam ne bu masa yëg coona ci julli lay nopploo ci la xelam di dale ci la xolom di féexe ci lay fàtte jafe-jafe àddina yépp teg ca ñaanal ki ni fàttali ko ay jëfam fii yàlla gën koo dolli ngërëmam gannaaw loolu lépp mbokki taalibe yi mbokki julli maa ngi leen di nuyu ci turu sëñ muhammadinil muntaqa saahibil himmatil aliya wal xalifatil aammi lil muridiya ayadahu llahu wa nasar wa xafidahu wa satar wa rahima salafahu wa xafar di leen ndokkeel ci mbir mu màgg mi tax nu daje fii mooy fàttaliku jëf joo xam ne li ko lal mooy gëm yàlla gu mat te dëgër ak wóolu ko ak wakkiilu ci moom képp ak doyloo ko muy julli gi sëriñ Tuuba sëriñ bu mag bi julli woon ci géej gi te booba ak tey jii di téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom ñett ci tubaab yi ndax mi ngi amoon 1995 ba ren di muy karaama gu rëy gu yàlla may sëriñ bi waaye di bind bu nu war jànge lu bari bokk na ci jàmm gi tax yàlla bindunu wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun wari su ko sàggane ak lu mën xew te bokk na ci saggane ko def ko ci fudul waxtoom di bàyyi ba waxtoom jàll di fay ci lu dul bokk na ci itam ñàkk farlu ba matal sart yi ware jiitu julli gi te ñépp xam ko bokk na ci itam yàkkamti bay bañ def ay farata ci biir julli gi walla defeen wa di bañ a mat loolu lépp sëxwu ci julli la te bañ koo fullaal di ko sàggane bañ koo def ni mu waree te ñi demee noonu la yàlla doon tëkk wax ne fa waylun lil musallin julli yàlla rëyal na mbiram lool te woyofulu ci dara lu néew néew ba tax na nit mën nay julli daray sëxu bañ caa am mu sell ni mu war a selle ci saahir te du tax boroom mucc ngir lan ngir ne da doon njistal yàlla taxut walla seddu seddu ca mu seddu ca laneen seddu laneen def ko ngir yàlla ak ak laneen seddu ci laneen ak bañ cee yàlla dara ñooyam lu ci ne rek mooy yàllay kese bañ a tax an salaatim na sahwu fii tekkiwu fi jamooj gi nga xam ne mooy juum wàññi lu ci bokk walla juum dolli lu ci bokkul te mën a dal kone bu yàlla teg koo kii julli kii julli kon waxi nopp bi muy wax waa sawara buñ leen di laaj lu leen fa dugal lim na ay sabab yu leen fay dugal waaye ñàkk julli la jiital teg ca ñàkk joxe asaka kon bañ a aja joxe asaka itam dara jëru ko bi muy wax ñàkk a joxe asaka wala ñàkk a dimbale miskin rek bi sakli na am waaye asaka jëm faratal moo gën a yeyey maa salakakum fi saqar qaalu lam naku min al musallin wa lam naku nut'imul miskin ila axir julli ak asaka ñaare yàlla da leen di boole kon lu ni ko ñu liñ julli ñore lu koy boole rek loola ñor na ko waaye bokk na ci liñ mën a jànge ci julli sëñ bi ci géej gi amuk soloom akub dayoom ak wàcc waayam fa ba tax mu jaral ko lim ko jaral waaye daa xam fii ko yàlla teg rek te moom ngërëmul yàlla la doon wut musta dañ di ci soññee ba wax nañu ne bokk na ci li mujje denkaana ci waxtu yu néew lu jiitu mu wuj boroomam wax ne na ngeen farlu ci waxtu juróom ak saraxe ak ñaan moom it gis nga ni mu toppee ndigalul yàlla te roy yonent bi bi mu nee julli rek daf ne saraxe kuy digle saraxe kon digle asaka waxi nopp taalibe yépp war xam loolu ñaan it yàlla ne ud'uuni astajibu lakum ku bëgg am lu man di doon nañaan yàlla ku bëgg a mucc ci lu man di doon nañaan yàlla yàlla yàlla moom moom moom ñépp te ñépp la fi nekkal ci kaw nag nuy jéema jaar ciw yoonam assiraatul mustaqim wim nu tëralal te mooy sariya bi jaarale ci jaamam bi ko gënal ci jaamam yépp di muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nan gën a fonk julli gën koo jox yitte roy ko ci sëñ bu mag bi tey sun sëriñ ñun murid yi di sun roy waaye ko am baneen sëriñ nit noo noo war a bokk jëmuwaay ndax ci yoon sëriñ sépp li yonent bi daa digle lañ war di digle lim daa tere lañ war di tere ni ki nga xam ne yonent bi ci boppam it ay ndigalim ak i tereem mi ngi dellu ci ndigali yàlla ak i tereem ndax fil haqiqa moom yàlla rek moo sañ a digle moo sañ tere ku moom da koy jottalil rek wala muy jottalil ku koy jottalil innal amra kullahu lillah at mun dugg at mu bees mun duggati nañ jéem dabaatal lañ sàgganoon ca at ma ko njëkk ci wàllu julli ndax kenn xamul dana génn at mi dugg walla déet kone rafet njort képp la am te ku dem ku liis koy jëkka laaj mooy julli bu jagee lu ne mën naa jag ndax ak yombal da am bu jagul amul leneen luy mën a jag ndax ak jafeel dacay am jaam bi jëfum yu rafet ci lu mën di doon ak lum néew néew buñ ko dee dàkk di ko ca laaj génnam ca daa yomb te fonkoon julli daa ko rafetal mën na koo jural loolu ay jëfam yu ñaawit ak lum néew néew ci lu man di doon tànn ko di ko ca laaj mën na ko jural musiba te sàggane woon julli daa ko bañ a def walla daa ko ñaawal mën na ko mën na ko jural loolu kon jullee ngoogu yàlla nu yàlla notol seytaane ak banneex ak bakkan ban man koo fonk di ko sellal nim ko bëggee tan xam ne fonk ko sellal ko mën nañoo musal ci lor yi yépp ndax moom mborom bi moo ne inna salaata tanha anil fahshai wal munkar julli day tere ñaaw di terelu lu bon te yooyu nag ku ci mucc baax rekk moo fay sës yal nan ko yàlla defal maa ngi nuyu ñi fi teew ñépp kilifay diine yeeg kilifay aada yi di ci jiital Abdul Karim Fofana mi nga xam ne moo fi teewal kilifa réew mi te bokk ci kër gi di taalibeem sëñ Moustapha ñu ngi koy jot lool suñu nuyoo ñi itam ak nuyoo sëñ Mountakha yaa nañ fi teewi ati ati at te at mu dikk yàlla nañu dàqal ma weesu yàlla na def jàmm ci réew mi def fi xéewal mu law ñëpp am jàmm am xéewal ci barke sëñ mi tax ñu teew fii wasalaamaaleykum wa rahmatullah na ñëpp tàllal amin ñi ngi sant bu baax nag teewaayu